li la ñu naan ay jégandum wala leneen. jégandum xam nga boo bëgg sa boo ko seet moom daanaka day daal di dugg nag ci làkku pël. min mm-hmm. mm. mm-hmm. jéey yi. waaw oh, xam nga loolu day daal di mat wala pël dana lu moom day ndax man maa ko moom min jéey mm-hmm. fonkol alal lool. waaw ah, te sam boppam nag. arikal la moom lu mu la wax rek ne ci moom. arikal la askan bu rafet neexul du ñëpp a ko a bokk. arikalla nit nit yàlla la ñu woon nag. arikalla fa ñu ne ko ne moom du yàlla daf ñu jox xéewal wërsëg. arikalla soo gaawtoo dem daal ba ba ñu toog ko rek. waaw bu soobee yàlla arikalla. waaw moom kii am na solo. lii daal ñetti ñetti.